diine dem na sutura zahaba ngor dem na sellal tabi'a sëñ Abdou dem na taraktata jommi jaaxle ngëlëm shadida yenu yen bi billahi kullan bi sabri wal ilmi bari ngor yaa wootu sa baay ba jërër teg tànk bi ci tànku xalifa asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Tiwaawan man la Gumba Anta Njaay doomu Tiwaawan tey nag maa ñëw di waxtaan ak yéen di leen yëgal sama bis bu rëy boo xam ne bis bu ma fonk la macha allah muy le 1 avril muy ci boulevard bi tey nag maa ngi njëkk a waxee nag ci site internet bu nuy wax Tif Info maa ngi toog ak suma xarit ki ci sama càmmin di Babacar di tagkatu di di waxtaan ci Seydina Muhammad ñu tuddee ko Seydou Aboubacar si mu am ci ndigal ci daara jeeg ci kër gi muy sunu xarit boo xam ni lu yàgg lu nekk rek dëgg la te ñi nga xamante ci keppaaru Pape Malick Mbaye ki ci sama nijoor nag ku ko gis du ko laaj lu tax mu toog sama nijoor muy Pape Malick Mbaye di caatu baay mbay Donde muy sama xarit ñu bokk Tiwaawan waaye ñu bokk Kulingi Jaan bis bi nag ma bëgg a def kàddu yoo xam ni dama ci bëgg a wax rek pour wooti àdduna bépp rawatina waa Tiwaawan woo ci xalif général de Tidiane muy Serigne Babacar Sy Mansour ak ay rakkam ak njabootu Seydi Hadji Malick gépp di ci woo murit yi di ci woo xaadir di ci woo ñaseeni bis daal maa ngi ci woo ñi ma yàlla booleel ñëpp wax ji nag di soor yi damay jox Serigne baabakar mu sànni ci ay kàddu muy sunu xarit di sunu soppe. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan ci seen télévision seen seen euh, TV info ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen baalo àq di leen ko baal di ñaan yàlla yàlla boole defal ñu njéggal. fa tabaarakallaahu comme ni ko sama waa ji waxee rek Gumba Anta Ndiaye doomu Tiwaawan comme ni mu ko waxee rek macha allahu taala ñu ziar ko bu baax ziar ki nga xam ni nag mooy sunu lépp mooy alxaaji Pa Malick Mbaye waaye di yëgle nag bis boobu nga xam ni sunu bis la macha allah ndax Gumba Anta yàlla dogal na ni lu dal ci moom dal na ci man dal ci alxaaji Pa Malick dal ci alxaaji Omar Touré ak ñu ngi ko séqal ñëpp macha allahu taala kon nag bis boobu sunu bis la ñu ngi ciy woo ñëpp képp koo xam ne sopp nga Seydouna Muhammad man de particulièrement waa Thiès maa ngi leen di woo waa Thiès gépp nag ma kenn maa ngi woo ñëpp incha allahu taala le premier avril ñëpp ñëw fekk si ma Thiès ñëw ñëpp ñëw fekk si ma fii Tiwaawan la 1 waaw la 1 avril incha allah ñëpp ñëw fekk si ma fii Tiwaawan incha allahu taala ñu ànd ko waa Tiwaawan ak waa Dakar ak Sénégal gépp ndax Gumba Anta in xam ngeen ni moom bu wootee ñëppay ñëw ndax Gumba Anta Gumba Anta ñëpp la kon la 1 daal ku fa 16h fekkul incha allahu taala doo am 16. kon ñu jox sama seex rek Pape mbay caatu mbay Donde mu mu woote ndax bis bi bisam la ëppalewu ma ko ci dara. muy sama xarit di sama seex. waa bokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi nuyu bokki àdduna bi yëpp di yëgle suñu bisu bopp nga xam ni gumba moom bari na lu ko nit fonke mooy fu mu dem ci àdduna balaa wax dara danaan waa Tiwaawan kon nag ñun waa Tiwaawan amel nañ ko njukkal mooy nit ku ne bisam la am ndax sëriñ Abdou da daan wax ni nit kenn du ko xeebal ñettam kenn du ko xeebal sëriñam kenn du ko xeebal bisam waaye kenn du ko so xeebal soxlaam ñett yooyu nag benn moo ci am fa tabaarakallaahu mooy suñu bisu bopp bi di la un gumba di ko def gumba mu Tiwaawan waaye ku ni gumba nag ni gumba mu Matar Ba di xaritu Matar Diouf fa tabaarakallaahu li ci des nag moom moo koy àggalee fa tabaarakallaahu nday yàlla ko binde noonu yàlla boole kook nit ñi mu baax disponible ñuy ñaan nag waa Tiwaawan na ngeen génn sagal gumba ndax wax dëgg yàlla fu mu dem ci àdduna sagal nañu kon nag yàlla na ñu yàlla defal jàmm incha allah maa ngi ciy woo sama soppi yëpp ñu ñëw jàppale gumba ndax bër ki dem rek sama bis bi mu amee ni mu ci taxawee gis ngeen ko te budul lool sax man ak moom ñoo yaroondoo defandoo lépp. kon nag képp koo gis vidéo bi la 1 avril ñu ngi lay invité fii ci Tivaouane ci boulevard bi incha allah ci kuli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa kon nag maa ngi woo sénégalais yëpp waaye maa ngi woo waa Tivaouane gépp maa ngi woo sama kilifa sama xarit muy Matar Ba ministre des sports maire de Fatick waaye maa ngi ci woo ki tax ma xam Matar Ba muy Matar Diouf taalibi sëñ Abdou Aziz Alamine maa ngi woo. ab Ablaye ngal Ngalgu président mouvement ànd defar waaye maa ngi ciy woo Mamadou ngoom ñaa la seen daaz série awakan waaye maa ngi ciy woo ku ñuy wax maam booy jaawoo DG impo di lom di koldaa sama xarit mu may jàppale ci lépp maa ngi ciy woo ku ñuy wax maali Gaye DG Azitip waaye maa ngi ciy woo monsieur le maire Mamadou Sy Diagne si Mbeng muy maireu Tivaouane waaye muy DG seen asalem waaye maa ngi ciy woo ministre d'État Abdou Ndéné Sall waaye maa ngi ciy woo seeni Gueye Touré présidente conseil départemental maa ngi ciy woo honorable député Yaya Diallo waaye maa ngi ciy woo lamin Diouk waaye maa ngi ciy woo ku ñuy wax Maodo Malick Diop maa ngi ciy woo Cheikh Tidiane Diouf maa ngi ciy woo képp ku ma yàlla booleel may ànd ak yow waaye maa ngi ciy woo ku ñuy wax Papis Demba Cissé la international di ci woo Maodo Malick Mbaye international sama xarit waaye di ci woo Yélamine Gumbala couverture malaadi universelle di sama xarit maa ngi ciy woo waa Tiwaawoon gépp rawatina waa Kuli maa ngi woo waa niim gi ndax ñun foofu lan juddoo ndax ku ñeme rek dañ laa dee ndax fii moom kenn na mu fi dara kaas wuute rek waaye ku xëy ndékki kon nag lu ma man rek waa Tiwaawan la lu ma am waa Tiwaawan ñoo ma dooleel ñoo ma jàppale kon daal bis baa ku déglu vidéo bi rek na nga xam ni mooy sa invitation waaye maa ngi ciy woo sama mag sama xarit ki nga xam ni ku ma jàppale la ci Ndakaaru lu ko wër muy waali Ballago Seck ki nga xam ni macha allah benn bis dañuy waxtaan mu ni ma gumba su ma sañoon de Tiwaawan dootoo fa yëngoote ci ay affaire u aar ndax Tiwaawan seen ñaan. moo gën seen bruit ndax bu ma sañoon doo fa doo fa def daray bruit daal ndax loolu baaxul ci yow moom bokk na ci ñi tax ma ñeme tey jii daa di woote ay jàng def ko sant Seydina Muhammad ci boulevard Kuli bi kon waale bis boobu nag sa anniversaire xam na ni la onze la waaye la un moom dama bëgg nga ñëw ci boulevard Kuli bi ñëw bokk ak man bis bi ndax loolu dina ma neex loolu ni bakkan ci xaru kanam kon daa di kontaan nan ci interview bi wax ji du gudd waaye képp ku liir vidéo bi rek mooy sa invitation ndax man gumba ndawalu guddi laa rek ku làmb da nga yaakaar ne yaa daj maa ngi ci woo Abdoulaye Dieye sama xarit DG Sata Torak ba démb rek laa jóge sa bureau nga defal ma teraanga bu rëy yal na yàlla defal jàmm ba le 1 avril. teg tànk bi ci tànku xalifa. wuutu Cheikh Tidiane ak Mansour maama Abdou Kaza Jamila yaa wuutu yoneen bi dëgg la wuutu Cheikh Tidiane ci diine Serigne Abdou dem na